des Sénégalais. Mhm. lii muy nattu bi nga xamante ne nattu àdduna la ñu war a ñaan yàlla suñu borom suñu borom jëlee ko fi. Mhm. mooy lépp ci dal ci yar ab su gëm. Mhm. li nga xamante ne moom la ñu nekk muy diine gu nekk. waaw loolu est et la situation est très tendue de telle sorte que ku si nekk war na jóg jël matuwaayam te li nga xamante ne moom la ñu tere ñu jëfe ko mooy doon li ñuy sàmm mooy doon li ñuy dimbale mooy doon li ñuy aar waaw parce que ni mu yéegee nii ku si nekk war nga tiit sa borom damay ñaan ñi nga xamante ñoo am jàngoro ji buñ ko nëbb Mhm. parce que c'est très important euh, euh, euh, Ngoné. dëgg la. ñu feeñal seen bopp bu ñu rus bu ñu làqatu. Mhm. nañu génn man récemment maa ngi woon Dubaï. Mhm. bi ñuy fermer frontière yi laa ñibbi ci Sénégal mooy vendredi bu mu jubi fan nga aw ba dugg Sénégal. volu Emirates bi laa jël. Mm. jour bi ñuy fermer frontière yi. bés boobu nga dugg Sénégal ah di xam nga dañ ne minuit lañ jotee ñun 17 heures la ñu yegsi. Mhm. bi ñu yegsee 17 heures dama ne sama soxna ak samay doom nañu toog Dakar. Mhm. ma woo suma waa kër yaay ne leen na ngeen toog kër ga bu ma kenn seet si bu ma kenn nemmeeku parce que dama jàpp ne un responsable dafa war a joxe un bon exemple et may wax je prends en témoin le gouverneur de la région de Thiès. Mhm. je prends en témoin le chef district sanitaire muy Saliou Ndiaye. Mm-hmm. monsieur Ndiaye bi nga xamante ne moo nekk euh, région médicale bu Thiès. ak docteur Faye bi nga xamante ne moo nekk hôpital dixième bu Thiès. Mm-hmm. je le prends en témoin. Mm-hmm. dama dem confiné wu sama tool. def ay test ba période euh, kii bi jeex ba période ba période bi jeex. ba quatorze jours yi mat. ba quatorze man dama ko prolongé ba vingt prélèvement quarante huit après yónnee ma euh, résultat yi mhm. ma toog ba vingt cinq jours mhm. leer ma ne suñu borom dimbale na ma ba liñ doon njort aw ko mooy soog a génn di soog a dajeek nit ñi je pense que un responsable noonu la war a doxalee loolu c'est vérifiable pour les vérifier mhm. d'ailleurs bu ma gouverneur gisee loolu la ma njëkk a wax mu ne Massaly je salue votre sens patriotisme Mhm. donc dama jàpp ne warul ñoo am jàngoro bi di ko nëbb mhm. war nañu dem xool yi suñu bopp mooy li ñuy aar li ñuy sàmm sàmm suñu njaboot ak suñu entourage mhm. man de loolu laa gëm te loolu laa jàpp nit ñi nag ali yéen nañu feeñal seen bopp ba pare ñuy respecter li ñu sant parce mooy doon lu ñuy aar mooy doon lu ñuy sàmm parce que nag. dëgg la ku tiitul war nga tiit ku ragalul. Mm-hmm. war nga ragal. dëgg la. ci bi toll tey. Mm. ah man de tiit naa. Mm-hmm. yàlla rek laay waxal. Mm-hmm. donc ku si nekk it foo nekk na nga delluwaat sa xel ak sa xol ci suñu borom. ñu xam ne natt la suñu borom wàcce ñuy aar te sàmmuñu muccal ñu ci jàngoro bi mooy moytu benn ñaar mooy tuub ñett mooy nañu delluwaat suñu xel ak suñu xol suñu borom dañuy jéggalante di jëllalante di baalonte di yéenante jàmm mhm. loolu moo ñuy aar moo ñuy dimbale ci li nga xamante ne moo fi nekk may lancer un appel solennel di gërëm ñi nga xamante ne ñooy ñi nekk ci hôpitaux yi mhm. parce que ku leen gërëmul ñaanaloo leen suñu borom doo gërëm kenn mhm. maa ngi gërëm it les service militaires et paramilitaires maanaam la police la gendarmerie mhm. les militaires y compris waa service pénitentiaire yi mhm. parce que nag àlla yëwén bi affaire bi amee ba léegi ñoom dañu bàyyi seen njaboot bay seen jabar bàyyi seen doom bàyyi seen papa bàyyi seen yaay bàyyi seen i kër bàyyi seen i lépp mhm. nekk au service de la population mhm. donc gàcce gaalaama homme de tenue yi Mhm. policiers yi ñëpp xam nañ ne génn ñu ci caserne yi militaires yi génn ñu ci caserne yi mhm. gendarme yi génn ñu ci caserne yi pénitenciers yi génn ñu ci prison yi lépp ngir lan ngir ñun mhm. ale yowén lu ñu dëgër dëgër bopp lu ñu dëñ kumpa dëñ kumpa lu ñuy nëbb suñu jàngoro di ko nëbb ay waaye ñu leen yërëm te xam na ñoom dañoo am ay bokk am ay kër am ay waajur mhm. bu ñu toogee tey ci caserne yi ñun la ñuy aar ñun la ñuy defaral ñun la ñuy sàmm pourquoi duñ leen ko delloo mooy rester respecter consignes yi mooy rester chez vous mhm. waaw te ñuy digle li nga xamante ne di ko jëfee médecins yi du ñu jóg ci li ñu ko wax mooy ñuy pratiquer li nga xamante ne moom la ñu sant muy maanaam bi raxas loxo yi di takk ay dox di moytu saa su ne mhm. suñ ko defee rek suñu borom dama fi jële jàngoro ji si lu mu gën a gaaw ñu ngi lay remercier Mamadou Massaly di la euh, jaajëfal di fii tamit ci li nga xam ne def euh, nekk na geste di doomu Sénégal yëpp parce que vous informez mhm. seen njàmbarte seen taxawaay seen bëgg Sénégal wax dëgg yàlla ngàcce ngaalaam merci beaucoup yoon bi ngeen jël bu leen dara dévier mhm. ci taxawaay bi ngeen am mhm. bu leen dara jële ci informer juste et vrai mhm. bu leen dara jële ci ligne éditoriale bi nga xamante ne moom ngeen am yàlla na leen yàlla aaral boppam yéen journaliste yi yàlla sàmmal leen boppam parce que tey bu situation bi tollee fi tey ci information seen taxawaay la seen matuwaay ak seen xarañ kon yàlla na leen yàlla sàmm sàmm Sénégal ñi am jàngoro ji suñu borom mu wëral leen ñi ko amagul yàlla leen yàlla aar sàmm leen ba mu nekk ab souvenir bu nga xamante ne ëllëg day doon lu ñuy nettali jërëjëf maa ngi nuyuwaale aussi sama mag suma xarit Mbango nekkaat yàlla na yàlla defal jàmm yéen ñëpp. amiin ñu bokk ñun ñëpp ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu safoo di seetaan euh, li mu wax ci Sénégal nag yaakaar naa ne ku ñëw fi nga koy fekk waaye ku demit fi nga koy bàyyi loolu liggéey boo xam ne liggéey travail d'équipe la hmm. dañ ciy gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun muy équipe rédaction